الحمد لله الذي ردي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاد عليهم نعمة وكتب على نفسه رحمة ودمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضب غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة منه فضلا فهذا عدله وهو وحكمته العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته ولا متمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومهجة للسالكين وهجة على العباد أجمعين بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا ولخليقة هاديا ولكتابه تاليا ولمرداته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وقد ترك أمته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 waaye di santaat yàlla mi ñu may kàttan ñu fekkee benn si waa di def fajar di wa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi waaye di julli si yonent bi ak waa kiram ya saxaaba ak képp kam yaa ngi topp sunna bi ilaa yawmal qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla boole si ñooñu waaye yàlla boole may aafiya may aafiya may jullit jullit allah la yàlla yërëm leen xare àjjana yàlla yaatal seen bàmmeel leeral seen bàmmeel ndaw yàlla sàmm leen aar leen laaxaleen bi yàlla tub leen si yoon siraatul mustaqim yàlla subhaana taala aar suñu jigéen ñi suñu mbokki Palestine yàlla aar leen yàlla sàmm leen yàlla taxawu leen yàlla may leen dem si kaw yahudi amin ya rabbal alamin mbokk jullit ñu fii si daaray Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi jàngalekat mu boobu mbokk ñu inwaat leen aaya yàlla subhaana taala di wax ak dullit doomi aadama yi nga xam ne si àdduna bi dañoo gumba gumboolu waaye du gumba bot waaye gumba gum doon mooy gumba xol yàlla subhaanahu wa man kaan fi haadihi ama fa huwa fi l axirati ama dalla sabil mu ne fii nag yàlla subhaanahu wa man kaana fi haadihi ama maanaam ki nga xam ne si àdduna bi mu ngi nekk gumba du gumba bi nga xam nag selmaxa bi téye banta wala ki nga xam ne ki nga xam ne xolam du nangu gisee dëgg tamit du ko jël gisee yoon bu jub du si waaye moom axakañ ah, mu ngi toppa bànneexi bakkanam mu ngi toppa si ay njublan mu ngi toppa si ay ñaawteef yu bon rek ba tax yàlla subhaana wa taala misaal mu ko indee mooy kooku gumbo la parce que fa mooy dem ah fa mooy dem te mooy dem amul mucc ndik lan a gis dëgg bugut a nekk si dëgg mu ne kooku nag àllaaxira ni meloon ne si àdduna àllaaxira tamit noonu la fa waaye nag professeur dafay gën a réer yoon bi waaw ndi foofu nag mu ngi yaakaaroon si lim nekkoon fii àdduna mu ngi nekk si lu baax mu ngi foogoon ne si lim nekk si àdduna si dëgg la nekk waaye moom si boppam sax xamoon na nekku si dëgg waaye bu demee àllaaxira nag dara la fa dul lu baax mbokk jullit yi loolu xasaara bu la si doomi aadama bi mbokk jullit yi bon yàlla subhaana taala bam ñu indi leen leer muy alquran ñu war see gindandeku indi ñu yonent bi alayhi salaatu ay xadis yu wér ñu war see toppa ndax ñu mën a nekk si leeri àdduna muy leeri xam-xam bi nga xam ne al ilmu nuur comme ni ko waxee rek ne xam mooy leer te leer mooy bi nga xam ne moom la yàlla subhaana taala indi pour ñu ñëpp ñu leeral ko ndax ñu mën a mucc àdduna mucc àllaaxira te yàlla xam ne tamit noonu la mel nga xam ne xolam jël du nangoon jël dëgga moom suñ ko waxee sama mu mer waaw ndik lan rëy ndik lan يك بوبام يييب امنا سي دومي ادم بي ريالا ن ونحشر يوم ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وسميا مأواهم جهنم الله اكبر سبحان الله نعم. يا رانا كير سنيو ديكي نك يوم القيامه تدنا ام ده ني دي ديكو دالي سي مام ادم نجابو تام بي كي موجي سي كاو سوف kër yomal xiyaama ñëpp nañ dekki ñëpp ay taxaw si kanam suñu borom mbokk julli oote bu nit oote si àdduna fii am na ñu koy fekkee am na ñu koy ñu ko dul fekkee am na ñuy teew am na ñu dul teew waaye oote kër yomal xiyaama ba subhanallah ñëpp yàlla ne nag bés bi may dekkali bés bi ma li naa yomal xiyaama mu seen xar kanam ya waaw leer du fa nekkaati maanaam lëndëm bi nga xam ne si lañ nekkoon si àdduna fii ñàkk a gis dëgg bi ñu nekkoon si si kaw bi seen bopp yi dañooy muuru bañ a toppa yonent bi salaa salaam bañ a toppa sunna yàlla subhaana taala mu nekk rek nag seen bopp ñoo njëkk a dal di muuru duñ gis te ndeysaan àdduna ñu doon gis di doxal seen soxla dem fu nekk keroog nag dañoo yomal qiyaama bu ñooy dekki dañooy dekk ay nekk ay gumbo waaye amul foofu waaye amul foofu tamit dañoo te duñ dégga duñ gis du wax mënuñoo wax xam nga foofu foofu la mbugal am buga foofu la mbugal bi commencé àllaxira yàlla nag wa mawaahum jahannam waaw ñooñu nag seen dëkkuwaay mooy fan mooy jahannam muy naaru jahannam muy safara yàlla ñu yàlla mosa si dëkkuwaay boobu ma ne lu waral lii لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه waaw parce que ñoom noonu lañ nekkee woon si àdduna nangu ñoo jël dëgga nangu toppa si dëgga ñoom ngi toppa seen bànneexi bakken rek waaw saa boo leen ne yàlla ne yonent bi rek ñu gis seen boppa waaye soo leen ne diw wala caaxaani rek aha kañ waaye waaye ñu jàpp ko fonk ko lool loolu mu ne doomi adama nag gis ku nekk na dee ñoo ngay dékkee kër ki nga xam ne si topp alquran ak sunna la ko yàlla jëlee buy dékki yomal qiyaama si loolu la ki xam ne si ay caaxaan wala ay bidaa wala ay yoo xam ne yàlla santaanewu ko mu ne ko tamit buy dékki noonu lay dékkee subhanallah subhanallah bon mbokk jullit yi war ngaa mun a defar sa boppa ne ah man de naa gën a defarwaat pour yomal qiyaama su may dékki ma dekk si yoon yàlla yàlla ma bokk si ñu yàlla di gërëm ma bokk si ñu yàlla subhanahu di yërëm parce que lan adduna bi maa ngi doon xeexa suma bànneexi bakken maa ngi doon moytu yu bëree bëri bi maa ngi góorgóorlu pour lu may def rek ma def ko teg ko si alquran ak sunna te moo ko jullit yi lii yëpp dina amee waaw lii yëpp dina amee léegi-léegi nag nit ki toppaan fii bànneexi bakkenam ne ah man yëpp ay wax la waaye nag bisa ngee ñëw bisa ngay ñëw benn di wane yaa layte ni eh yàlla su ma xamoon su la xamoon nag jullit bu nekk war na ko mun a muslu di war a wax ne yaa layte su ma xamoon waaw bon yàlla ñu ne teg si yoon siraatal mustaqim yàlla subhanahu wa taala yërëm ñu yàlla woon ñu yoone dëgg te ñu xam ko te toppa ko waaye yàlla woon ñu yoone safaan ba ñu xam ko te moytu ko يا لدفني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين